bienvenue leen ak jàmm ci docteur Abdoulaye Diallo le médecin le plus professionnel ma ne la ki mooy Abdoulaye Diallo le mythe de sa génération ki nga xam ne moo mën lool ci saafara jàngoro yu ci mel ni colopathie hémorroïde cystite impuissance sexuelle diabète hépatite B arthrose polyarthrite rhumatoïde nerf sciatique hernie discale ak hernie inguinale ulcère fibrome kyste ba ci stérilité lépp loo ci jaaxal seet si docteur Abdoulaye Diallo yow mi amee rab woyof daf nekk ci yow cat daf la sonal da nga bëgg a ubbiku bëgg a am alal ju gaaw te jaar ci yoon seet sil docteur Abdoulaye Diallo mu nga ca Petit Mbao dana disponible li ko dalee samedi dimanche lundi bu dee Touba nag mardi après midi bi woo ko gaaw ci 77 203 08 04 wala nga def 77 959 28 09 docteur Abdoulaye Diallo mani la phénomène baa ngi nii ci wàllu santé lu la jaaxal ci say tawat dawal seeti jikko docteur Abdoulaye Diallo Diallo, de sa génération. mbara wàcc gaynde njaay moom ngay dégg ci sénégal gi yëpp tey moom la ñu xëyee ci alxames yi ginnaaw bi nga xamee ne démb la ñu janoog ñi nga xam ne ñoo di burkina faso ci coupe d'afrique nga xam ne ña ngi ko fa nga xam ne moo di ci cameroun gaynde sénégal yi daal di jàpp waa burkina faso duma leen ñetti bal bi nga xamee ne match ba dem nañu ba ci pàcc bu njëkk ba kenn dugalul sa morom benn bal sénégal am ñaari penalty yoo xam ne var ba moo ko andi leen ne amul loolee ginnaaw bi mu amee nag ci la lions yi daal di yeewu ci deuxième mi-temps ba indi ñetti bit yoo xam ne dugal nañ ko rawatina sadio mané mi nga xam ne moom la jël fal ko am dimat man of the match mooy Sadio Mané ki gën a xereñ ci match boobu mooy numéro 10 bi nga xam ne mooy boot fukk bi ci ginnaawam muy Sadio Mané doomu Bambali bi waneeti na boppam démb ba àdduna wërngal këpp di ko seedeel ni moom moo mën fii ci Afrique meilleur joueur Afrique mooy Sadio Mané ñëpp ko ko seedeel te daf koo wane Sénégal gi yëpp nangul ko ko Afrique gi yëpp ci victoire boobale ginnaaw ba Sénégal demaatee fi nga xam ne moom moo di ci final bi la mooy ñaareel bu ne moom kott moo fi nekk ab coach kan yoo xam ne football na ko Aliou Cissé juróom benn bit kott la ci encaissé te itamit nag la mu ca ñàkk ci match barewul mënees na koo jàppe ñaari match la ca ñàkk te ñaar yëpp benn équipe moo ko ca duma muy Algérie moom it di Aliou Cissé def na exploit boo xam ne kenn mësu koo def ci Sénégal waaye nag ci histoire gars yi na ko bala ngaa gën a dugg ci histoire nag mooy bu dimanche nga yenul ñu coupe bi indil ñu ci Sénégal altine ñu daal di koy jàppe férié fas a ko naan jërëjëf ñëpp a ngi ko naan gongo yow yaa fi nekk gën a la ci a xuus stade bu ba muy fecc ka way kanamu ñi nga xam ne ñoom ñoo di gaynde moom di El Hadji Ousseynou Diouf wane na mbégte gi mu àndal te naan je suis te naan man ni muy fier naa tey ci équipe bi nga xam ne moom lañu fi indi lu nekk dégg nañ ko ci début bi waaye waxoon naa leen ni équipe bi dafa yéeg en te loolee mujj naa am gis nañu équipe bi mu tàmbalee ci ay difficulté waaye gis nañu ni ñuy yéegee ndànk par ndànk bi ñu accès ci huitième de finale di Égypte wala ñaar ñu ci dumañ ngaa daal daje ak ci dimanche ga te fi nga xam ne moom moo di ci Cameroun ñu fas yéene football final bi ku mën sa morom daal di duma Fatoumata Ndiaye Fouta tampi noonu la ko jàppee ba ñu ne a ko ana ngay bëgg a ci entre Cameroun ak Égypte la mu ca wax moom moo di ne amul kenn kuñ cay taamu ku ca ñëw rek danañ la duma ba daal di ci sa kaw di si na waaye na leer nañu ne gaynde yi ñoo fi mën fulla ak fayda kenn gis mësu koo gis ci bile équipe équipe bi mooy équipe bi fi mën ci équipe yi fi jot a jaar yëpp moom mi di Fatoumata Ndiaye Fouta Tampi kàddu yooyu la yëkkati Youssou maa jigéen du roi dembalax moom li mu wax ma moo di ne du leen félicité gum dama leen di encouragé wax leen ni leen dem leen ba jeex tàkk ndax yi fi jeexagul li ci des ma moo di ngeen jëlal ñu ko bi indil ñu ko fii ci Sénégal su boobaa nag di ngeen dégg félicitation ak bravo waaye nag li mu gis tey bégloo na ko loolu Sénégal gi yëpp àndandoo woon nekk benn bégandoo wàcc ci benn Ndakaaru yi foo tourné ci Sénégal ñi nga naan na jëfam juréy jooju le Macky Sall bég na ba wane ko ci mbedd Ndakaaru Njaay génn ci buntu palais ba la def di saafoonteeg ñi nga xam ne ñoo ambianceurs yi maanaam ñi nga xam ne ay supporters lañu taxaw ci buntu palais ba mu leen di jox ay loxom di leen nuyu benn par benn loolee la président mujjee def li nga xam ne moom moo di ambiance gi ñu nemmeeku ci célébrité yi gis nañu ku ci mel ni Léna contentement Sénégal ci final bi lay jëmaat donte ni sax këm ko seqaloon ci bële passé muy Algérie génn na tour yu njëkk ya loolee mooy firndeel ni Sénégal ma nga ca kaw ci Afrique première ci Afrique doon itamit nag ki jiitu ci li nga xam ne moom moo di football fii ci Afrique ñu daal ko koy fal ndax ay jouram yu xereñ équipe bam bu baax ak itamit nag parcours bu rafet bi nga xam ne def nañ ko ci mboolem match yoo xam ne jot nañ leen koo wàññin muy ci éliminatoire ñaar ba ci match yi nga xam ne dafay xam dafay am ci coupe d'Afrique yi ba ci sax jongante xaritoo yi nga xam ne Sénégal dina koy faral di jongante daf ci waneeti boppam li nga xam ne moom la ñu gis ci kër Waly Ballago Seck Waly toog ak njabootam ñuy feete li nga xam ne moo di victoire Sénégal bi Waly Ballago Seck fa mu toog ak njabootam waa saabu gaay dugalee ñu daal di jubile wane seen bopp wane seen i mbégte ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak gaynde yi jamono ji la nag supporteru Sénégal yi ñoom ñëpp def benn wu say daal di fas yéene taxaw ci ginnaaw gaynde moo xam ñu siiw ñi moo xam ñu la moo xam borom xam yi la kum ci mën a doon ñëpp ngi naan gaynde ginnaaw la ñu nekk jamono jële li ñu bëgg moom mooy jëli ji ndam li indi ko man koo wuti ndam li la ñu wax léegi nag li ñu bëgg mooy final bi waxatuñu ko waaye li ñuy wax moom moo ne de kañuy dajal final kum ci mën a doon nañu fexe wane fit wane jom wane fulla ni ñu ko bal ci benn indi fii final bi loolee la ñu bëggaat ñu def ko ci li nga xam ne moom la ñuy dajal ci final bi kum ci mën a doon ci Égypte wala ci Cameroun ñaari équipe yu mag la ñaari yooyu équipe li ma gis ci sama groupe bi liggéey naa ak ñoom xam ne li ma gis ci bi musuma koo gis ci benn équipe esprit bi nga xam moom la ñu àndal engagement bi ñu amee jom bi ñu amee fit bi ñu amee ak li ñu wane ci terrain bi musuma koo gis ci benn équipe boo xam ne yor naa ko ci juróom benn at ne coaché naa na nag ñuy xaar ci ñoom loo xam ne am nañu yaakaar bu wér wér donte ni final bi ñu jëm ci dimanche dina nekk final bu metti loolu tëree ndaxte ñaar ñi gën a mag mag ci Afrique la ñu koy seqal muy Égypte wala Cameroun kum ci mën a doon ñëpp xam nañu leen Égypte li mu jël ci coupe d'Afrique bi bari na Cameroun itam li mu dem coupe du monde bari na ñaari équipe yooyu la lañ ko war a seqal waaye nag danañ wane fit wane fii ci Cameroun nekk pour rek di ko feete ñun mën a guñoo feete waaye li ñuy def moom moo di ne jàll ba ca final ba jël coupe bi soog a mën a feete Sadio Mané noonee la ko waxee Abdoul Diallo ba ci Idrissa Gana Gueye Bamba Dieng Ismaïla Sarr ñoom ñëpp benn kàddu gi la ñuy wax mën a guñoo feete yëf yi wala ñu ko mën a feete dëgg mooy ñu jël coupe bi indil leen ko ci Sénégal ñu feetoo ko ma daw ci ministère de la santé et de l'action sociale jëlil leen point covid 19 bi tey jile di jeudi yam ak 3 atum 2022 ñetti cas contact la ñu ca amee mooy ñi jaxasoog ñi amee mbas mi dofat fa jaare am mbas mi cas communautaire la ñu ca amee mooy ñi amee mbas mi taxamuñu fan la ñu ko jëlee 245 patients fàcc nañu leen ba ñu wér ñu doxiwaat seen i i biiri kër 11 cas garaaw la ñu ci lalu réanimation ya benn bakkan bu faat la nemmeeku fii ci Sénégal te mbas mi waral ko démb ci mercredi bi yem ak 2 atum bi fu mbas mi tàbbee ak léegi fii ci Sénégal 85 117 cas 1942 ñu fàttalante ba ñu weer 1950 ca seeni bakkan 2024 nekk sous traitement jamono jile ni ma ko baaxoo defe ci samay kàddu mbaas maa ngi ci suñu réew nañu sàlloo mesure barrière yi takk